ñu ngi ñëwaat ak yéen ci seen tafsirul quran bi ñuy amal ajjuma ju jot mu nekk uh, aaya yoo xamante ne ni dañ koo tànnoon ci biir kaamil bi mu nekk aaya yu am solo aaya yoo xamante ne nii dañuy defar jikko yi defar société bi defar kër yi laabal xel yi ak xol yi aaya yooyu lañu tànnoon nekkoon ak yéen ci suuratul xujuraat mu nekkoon suñu saar mujj ci aay yi ñu tànnoon ginnaaw ba ñu déparé ca suuratul an'am mbokk yi insha allahu tabaraka wa taala te dañuy ñëw ak yéen ci aaya bi mujj ci tafsir bi muy fi yàlla di waxee baada audu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم مكي خولال يالله سبحانه وتعالى نمو بآبي يا أيها الناس أي النيني bu ngeen xoolee aaya bi mujj dafa waxoon yaa ayuha alladina amanu tey mu ñu daan ne yaa ayuha naasu ay yéen nit ñi parce que tey ñépp lay waxal inna xalaqnaakum min zakarin wa untha maa leen bind man yàlla maa leen bind def leen ay góor ak jigéen wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu ma bindaat leen def leen ay population yu baree baree baree bare te bokkuñu waaye boo ci duggaat nga fekkaat fa ay xeet ma bind àdduna bi yépp def leen ay góor ak ay jigéen ma bind sénégalais yi ma bind malien yi ma bind ivoirien yi maa bind gabonais yi maa bind français yi ma bind ma bind ñépp àdduna bi yépp yàlla nee na moo leen bind def leen ay góor ak i jigéen bu ñëwaatee senegal mu ni wa qabaa'ila maa leen defaat ngeen nekk ay xeet ñi nekk ay olof ñi nekk ay séeréer ñi nekk ay pël ñi nekk joola saraxule xeet wu nekk yàlla subhaanahu wa taala nee na man la ñu ne ko ah mu daal ni inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla subhaanahu wa nee na ki gën ci yéen nag mooy ki gën a ragal yàlla mbokk yi والله أعرف بجنول بلبي بلبي جنول سيرير بي سيرير بي جنول سرخولي بي سرخولي بي جنول كن كي جنتي نيني دال موي كي تي جنة رجال يا الله سبحانه وتعالى يننتي بي صلى الله عليه وسلم دفا وحنا يا الله خولو سين جمي خولو سين علالي خولو ديو تي أسكن سانغام لبوك ديو ديو اي مامام ديو ديو اي بايام يننتي بي نينا يا الله خولو لولو دي waaye yàlla subhanahu wa taala li muy xool moom mooy seeni jëf yàlla li muy xool moom mooy xol yàlla subhanahu wa taala li muy xool moom mooy seen ragal yàlla xool fan ngeen toll te ragal yàlla gi mooy lépp lu mu la digal nga nekk ca lu mu la tere nga daal di koy bàyyi yonent bi salaa sallam dafa wax keroog ci zuru fatxu makka dani yaa ayuha nnaas inna allaha qad adhaba ankum ubayat al jahiliya nee na yàlla subhanahu wa taala dindi na ci xol yi dindi na ci nit ñi li nga xamante ni nii moom moo di gëm-gëm yi ceddo yi yoroon sama baay moomum dëkk bi maa fi gën sama maam moomum dëkk bi maa fi gën di wéy sama maam maa fi gën yonent bi saa salam neen loolu yàlla jëlee ne ko fi ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi aaya bi nga xamante ne ni yàlla moom la mujjee wax avant muy dugg ci jeneen wax ci biir suratul xujuraat aaya boo xamante ne nii tey jii jullit ñépp boo ko war a jàng te moom mooy yéen nit ñi maa leen def ay góor ak jigéen yaa ngi dégg def leen ay xeet waaye nag ki ci gën a ragal yàlla moom mooy ki gën ku ci gën a ragal yàlla rek moom mooy ki ci gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu ñépp ñoo bokk fu ñu jóge mooy ci mam aadama ak mam awa te mam aadama ci suuf la la bàyyi ko aha annaasu fi aalami tamthili ak faau abuhumu aadamu wal ummu xawaau benn waykat nee na doomu aadama yi ñoom ñépp ñoom ñépp kan mooy seen baay aadama kan mooy seen yaay awa jeex na ku lay jaay yax bu rëy dama nga toog ci mam aadama xaar ko fa wallahi yàgg-yàgg dina la fa fekk kon mbokk yi mbir yi nekkatul ci ay affaire fameek wala fii sama maam wala fële déedéet mu ngi nekk ci ragal yàlla subhanahu wa taala lii la yàlla jeexale aaya bi daal di wax nag li nga xamante ni moom moo di nit ñi daal di leen inna allaha alimun xabir yàlla subhanahu wa taala mooy ki am xam-xam waaye tamit mooy ki nga xamante ni nii peeg na li nga xamante moom moo di jëfi doomu aadama kon mbokk yi aaya yii moom lañ leen indiloon waxal na ne alquran moom mooy solution bi alquran nañ ko jàng kon nañu toppaat tafsir yi ñu déglu ko benn par benn la ko dara ci suuratul an'am ak ay yiñ jël ci suuratul euh, raad jël ko ci suuratu isra jël ko ci suuratul muminuun naka noonu jël ko suuratu shura jël ko tey jii ci suuratul xujuraat aaya yoo xamante ne nii wallahi alazim képp ku ci jàpp di nga tegu ci aw yoon ba boo taseeg sa borom subhanahu wa taala dana la gërëm boo taseeg sa borom subhanahu wa taala dana la faye li nga xamante ni moom mooy àjjana yi nga xamante ni nii moom la faye woon gaa yu baax yi te moo ñu toppoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp kon lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko doomu aadama matul saa yu waxee rek mën naa fàtte mbaa mu juum bu ñu fàttee nañ ñu fàttali bu ñu juumee ñu gàggante ñu waaye tamit kazaalika mënuñoo bañ a jaajëfal ñi nga xamante ne nii ñoom la ñu àndaloon ci liggéey bi ci commencement ba ba léegi te moom mooy Reflect Studio nga xamante ne nii ñoom ñoo taxaw ci liggéey bi di jaajëfal suñu mbokk Abdou Aziz Camara Khady Xumma ak ñépp ñoo xamante ne nii ñoo doon topp waxtaan wi ba mu commencé ba léegi mbokk yépp yépp yépp ñu ngi leen di gërëm di leen jëfal di leen sant di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bàyyi ñu fi di leen dajewaat ak yéen ci yeneen émission ci yeneen waxtaan yoo xamante ne nii du génn alquraanu karim du génn njàngalam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.